asalaamaaleykum. ginnaaw bi ñu sant yàlla. dañuy wax jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. ndax ñun moom am yaakaar te ay taal bi lañu. yar nañ ñu xam nañ ne dañuy wax ne aussi jàng nañu. waaw waaw. waaw. au niveau de Kër Cheikh Awa Balla pas totalement Kër Cheikh Awa Balla mais fii dañ ko dippee cité. sonneel suñu miir yi yëpp dañ ciy cité sonneel waaw. ak une association boo xamante ni ñu ko nommé AJDD association des jeunes pour le développement des Tivaouanes. boobu ñu pour le développement. ah oui ah oui ah oui. kon monsieur le maire. monsieur le maire ñun gënoon ñoo bëgg Tivaouanes ñun ñoo ànd ñun ñëpp bëgg Tivaouanes Mass Diagne man. bi may def troisième di def BFEM dama quitté Pire ñëw gërëm laa loose pour dem defi ji BFEM. yàlla may ñu ko ñu ñëw Thiaw continuer ba ma ñëw nekkaat fii nii kon dañuy ñëw fekk luy góom bu nekk ci koñ bi góom bi mooy lan primo mooy que ñun fii nii ñu taxaw jàkka ji moo ko moom nekkul marché mais ni fii liggéey ñoom ku nekk am nga ci euh, euh, doom joo xamante ni mën na laa defal. sa biir kër parce que koñ bi bëriwul ay chômeurs tali bii nii Moustapha Niang moo ko def ñun bu ñu daan ñëw gàmmu Tiwaawan dañuy dem guum te buñ fi jaar dañuy daw mais tali bii nii baaxul gàmmu Tiwaawan ne serait-ce que gàmmu jour gàmmu Tiwaawan benn tuyau moo fi bënn bi tuyau bi bënnee kenn mënul jàll te lii axe la moom mooy relier Kaafu euh, jëm guum mu nekk loo xamante ni lu ñu metti la fii nii ñu taxaw bu tawee bàyyi duñ julli ci jàkka ji jàkka ji day tëj deux jours te néegu yàlla la waxoon nañ la ko defuñu ko. Eh, réglé woon nañu solution boobu noonu ñu ni sëkk mënu koo defar mais lu sëkk mënul defar mën ni ndox bu ñëw dem ñun loolu lañ gën a soxla waxuñu kër gu ñu dugg fa joxe fa jox ko 1000 francs mais dañu wax loo xamante ni pour mu defaral ñu suñu koñ fii ñun moom lañu am moom la ñuy sagoo moom la tiitaroo. moom la fii mooy cité. te ñun dañuy jàpp ni ku fi ñëw ku nekk dañ lay du wax bu ñaaw bu ñuy def du wax bu bon bu ñuy def du ñeneen lu ñuy def parce que dañ leen respecté mais nit ki su ñu nit ki nit ki su ko joxee cër daf koy delloo ndax cër bi weesuwul bu élection jotee ñëpp dem voter Macky Sall léegi su ñu ko nee Macky Sall en retour Macky Sall duñ defal dara def lépp mais ne serait-ce na def loo xamante ni au moins. ñun suñ ko gisee dinañ ni kat kii delluwaat nañu sax au moins dërëm ci liñ ko joxoon. ñun loolu oto mbalit yi maire yi ñoom ñoom ñooy liggéey fii ci marché bi ñoom ñooy wëlbati ko waat di fay ay charette mbalit ay téeméer ku mu leen tuuri mbalit oto mbalit musul dugg ci koñ bi. dëgg la waaw oui dëgg la. musul dugg ci koñ bi comme donc ñun suñuy wax dañuy wax li nga ni moom lañu gën a gis nii pour l'instant mais am na leneen ak leneen ak leneen ak leneen loo ni ñu ngi ci koñ bi ba ci dem ba ci éclairage ñoom mooy ñëw fii nii muy Abdou Gueye ak Kaggu Fall ñoom ñoom ñooy ñëw fii nii defaral ñu dem jëndi ay lamp Sénégal ba ñu waaye tamit ku bëgg lamp sa bundu kër koy dem jënd ji te loolu du yoon koñ boo dugg koñ boo dugg ci kon agence Sénégal bi ñëwoon doon ko monté koñ boo dugg am éclairage au moins waaw muy ak man monsieur ñun en en plus chef de amuñu ko. parce que ñun dañ koy soxla tout le temps pour am résidence danaa man du ma seen chef de quartier seen chef de quartier daf leen gën war a jikko kon loolu dafa nekk ay élément fondamental yoo xamante ni franchement lu ñu naqari la neexuñu franchement tey suñ koy wax en tant que yow monsieur le maire yow lañ koy wax parce que mun nga ko saafara ñun nag waxuñu ñaanuñu la loolu sa devoir la loolu war a def la dañ ñoo wax pour nga defal ñu ko ñun loolu lañ bëgg wasalaam